dañ ko fas yéene tabax moderniser ko tabax yoon tabax infrastructure yi waaye nag jikko buñ ko changé wul du mën a dem donc il faut que ci wàllu transport ñu waxtaan ak suñu mbokk chauffeurs yi former leen moo tax maa ngi remercier Senbus ak Abdourahmane Ndiaye ci initiative bu mu jël ñoo defaat auto école ci wet gi ñu jàngal nit ñi métier bi niñ ko war a téye ndax bakkanu doomu aadama du lu ñuy foye yor auto di daw di course ci tali loolu dafa war a denc réew mi euh, il faut donc que li ñu bëgg nga xam ne Sénégal émergent la war a def ay autoroute ay tali yu bees il faut que aussi comportement yi ci volant yi ñu xoolaat ko loolu dañ koy lancer appel war nañu def loi bu bees bu ñu tuddee loi d'orientation boo xam ni bu ñu ne mode de transport yu bees am na am na autorail bu bees TER am na BRT ay bus yoo xam ne seen yoonu bopp la waaye ñooñu dañuy liggéey ak bus yi ngeen yor parce que yéen a mën a dugg ci roq yi ak fi gën a sore indi il faut que donc partenariat boobu ñu tabax ko. ba nga xam ne lépp dana nekk harmonie ci biir réew mi kon lii ngeen tàmbali dañ ko war a renforcer yokk crédit yi yokk bus yi loolu nag day fekk effectivement nii ngeen ko tàmbalee te ñu wax ko fi ñu maintenir loolu muy lekk fay la sant su ko defee crédit yi mën a continuer état bi mën a yokk loxoom ku amuloon mën a am ci ay bus pour transport bi jëm kanam